dal leen ak jàmm ci AGT bi leen dara bañ leen a raw. AGT News. daleen jàmm ci chaîne bi ngeen taamul seen bopp mi AGT News ñu wax ci déclaration bu agent judiciaire de l' état mu mel ni jamono jii dafay xajamal indépendance bu justice bu Sénégal. situation juridique bu Sénégal rawatina ci mbiri Ousmane Sonko dafa indi nag coow lu bari fi ci réewum Sénégal waaye nag fow ñu fàttali ni question juridique ak judiciaire dafa nekk mbir yoo xam ne dafa complexe muy laaj saay su ne ak gëstu gu xóot bokk na ci indépendance bu pouvoir judiciaire fi ci réewum Sénégal fan yi ñuy génn ci tribunal bu Ziguinchor am na dogal bu am solo bu fa jógee jëm ci ñu dugalaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi loole nag moo indi xiiro ak ngaayo dogal ju ci tribunal moo ko daal di jël moom moomee loi moo ko fa bàyyi mu war a wax dëgg goo xam ne da ciy tëddee njaaxanaay tribunaux yi ñooy gardien justice bu Sénégal jugement yi nga xam ne dañu koy joxe nag day sukkandiku ci loi bi waaye warta am benn pax parparloo gu tukkee ci langue politique yi agent judiciaire bu état bu Sénégal nag moom dafa ŋàññ boobule dogal àndul benn yoon ci ñu dugalaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi am na solo lool ñu fàttali ni agent judiciaire bu état bu Sénégal nag dafa taxaw temb ngir défendre intérêt yu état bu Sénégal taxawaayam nag warta indi benn gàllankoor ci indépendance pouvoir judiciaire fii ci réewum Sénégal. ci xiicoo mballoo gi nga xam ne nag am na jamono ji ci réewum Sénégal am na kuréel goo xam ne nag am na ci taxawaay bu am solo muy union de magistrats du Sénégal tënku ci UMS ñoom ñooñee yëkk seen kàddu di ñaawlu attaqué yi nga xam ne ñu ngi koy def jamono ji juge bi nga xam ne moo jël boobule dogal mu ne débat juridique bi dafa war a am ci saldo d'audience yi waaye warta am ci ëttu tasukaay xibaar yi wala sax muy jóge ci bitim réew di dugg fi ci réewum Sénégal doxalin bu nu men barastiku rek la ci tolluwaayu politique yi fi ci réewum Sénégal ak tension yi nga xam ne ñoo ci am xam ngeen ne fii ci Sénégal ñu bari jàpp nañu ne justice amul indépendance mu mel ni tey jot na ñu delloo siwaat xel yi xam ne justice dafa war a am indépendance ci am réew rawatina fu mel ni Sénégal Sénégal tey dafa sukkandiku ci constitution bi rawatina loi yi nga xam ne moo ko tënk moo tax jot na ñu daal di koy topp bu ko defee démocratie bi du am benn sikki sàkk képp ku ci am xalaat wala gis-gis da nga ko war a wax de façon pacifique ni ko loi bi daal di santaane recours juridique yi dañ ko def ngir rek mën a ŋàññ décision yi nga xam ne doomu aadama àndu ci Sénégal tey ci li muy gën a gañe mooy justice bi am indépendance gu mat sëkk ci ñi nga xam ne ñoo fare ci nguur gi rawatina ñi fare ci kujje politique gi bu loolu amee démocratie ak état de bi nga xam ne ñu bari jàpp nañ ne jamono ji mu ngi ci jafe-jafe dina gën a dëgër fii ci réewum Sénégal AGT News. Merci pour la confiance renouvelée à votre chaîne préférée AGT La déclaration de l'agent judiciaire de l'État, une atteinte à l'indépendance judiciaire. La situation juridique au Sénégal, en particulier dans le cas d'Ousmane Sonko, a suscité des réactions passionnées et des débats enflammés. Toutefois, toutefois, Il est essentiel de rappeler que les questions juridiques et judiciaires sont souvent complexes et requièrent une attention particulière aux principes fondamentaux de la justice, tels que l'indépendance du pouvoir judiciaire. Récemment, le tribunal de Ziguinchor a pris la décision de réinscrire Ousmane Sonko sur les listes électorales, déclenchant ainsi une polémique. Il est impératif de noter que cette décision a été rendue par un tribunal dont le rôle consiste à appliquer la loi en toute impartialité. Les tribunaux sont des gardiens de la justice et leurs jugements devraient être perçus comme des actes basés sur la loi plutôt que des manœuvres politiques. L'agent judiciaire de l'État a réagi à cette décision en contestant la réintégration de Sonko dans les listes électorales. Cependant, il est fondamental de comprendre que l'agent judiciaire de l'État représente l'État et ses intérêts. Sa position ne devrait pas compromettre l'indépendance du pouvoir judiciaire, un principe essentiel d'un système judiciaire juste. Dans cette controverse, l'Union des magistrats du Sénégal UMS a joué un rôle crucial en condamnant les attaques contre le juge juge ayant pris cette décision La voix de l'UMS rappelle que les débats juridiques doivent se dérouler dans les salles d'audience et non dans les médias ou par l'influence extérieure. Il est évident que la situation actuelle révèle des tensions politiques profondes, ce qui soulève des questions sur l'indépendance du pouvoir judiciaire et la transparence des décisions judiciaires. Il est primordial de maintenir et de protéger l'indépendance judiciaire pour préserver l'intégrité du système juridique du Sénégal. Le débat concernant cette affaire matière est incontestablement complexe, mais il doit être résolu en accord bien sûr avec la loi et en protégeant l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le Sénégal repose sur une constitution et des lois et il est fondamental de respecter ces fondements démocratiques. Enfin, pour toute préoccupation ou opinion sur cette situation, il est crucial de les exprimer de manière pacifique et conformément aux lois du pays. Les recours juridiques appropriés sont disponibles contester des décisions judiciaires si elles sont perçues comme injustes. En maintenant l'indépendance judiciaire et en respectant le processus légal, le Sénégal peut résoudre cette controverse de manière équitable, préservant ainsi la démocratie et l'état de droit. AGT News.